ne peuvent pas le faire donc ñoom suñu joxe woon yenn impulsion yi au niveau populaire man gëm naan dina am yenn impact yu significatif euh, chez nos populations parce que population bi dañ leen war a éduquer dama jàpp ne on doit éduquer ce peuple là c'est parce que bu fekkoon ni benn euh, guide religieux rek lañ am. Mmh. ñëpp xool benn côté. Mmh. mais ñun dañu am ay guide religieux. Mmh. am ay këru diine am nu benn këru diine. waaw boo waxee loolu. Euh, ku ne taaw yi jëm ca kër ga mu dëkk. absolument parce que duñ tas réew mi. tu sais li muy wax ni en 1900. parce que boo xoolee rek à chaque fois que ñu awee ko lu mel noonu rek. Mhm. ci internet bi da ngay gis que kenn àndul ak sa morom. waaw ku ne di saaga sa morom ku ne di dépasser sa morom. ku ne di wax loo war on les a pas moo tax. moo tax ma ne éducation bi c'est là où le bas blesse. di nga Sénégal gii la famille. Euh, boo am na si am na si benn part am na si benn part bi nga xam ne c'est à l'échelon familial mais yemul ci famille. ndax famille di nga góorgóorlu jaayante base bi c'est la famille ñun bu ñu yaroon suñuy doom. Euh, euh, gis nga éducation. Hmm. c'est un sujet d'ensemble bi nga xam ne ku nekk ci am partition am que ça soit euh, la communauté que ça soit la la famille la cellule de base que ça soit l'État avec l'école c'est que que ça soit les religieux dama jàpp ne ku nekk ci am benn partition bi nga xam ne kenn ku ci faillir dafay feeñ ci xale bi euh, parlant nag de de des religieux au Sénégal fii les religieux se sont toujours retrouvés mosuñu réeroo mag ñi fi nekkoon. ñoom ñoom ñoom Cheikh Omar Foutiyou. ñoom Seydi Hadj Malick ak ñoom ñoom El Hadj Abdoulaye Sy ñëpp ils ensemble. ñoo doon ñoo doon yëkkatendoo. ñoo doon wàccendoo. boo ñoom ñëpp a bokk. li andi kilifa diine yi sax ba si ñoom ba si ñoom Maam Mor Anta Sali. nga xam mooy waajuru Sëñ Touba. Mm-hmm. ñoom ñoom ñoom ñoom seen maam yeeg ñëpp lu leen andi. daal le Bawol dans le Kayoor ak dans Waalo. Mm-hmm. li ci bëri appelu Mabba. Mm-hmm. pour ñu ñëw xeexal l'islam moo fi andi woon donc euh, volonté boobu mosu fee dañ en 1971 bii passé euh, on a le CIS les religieux du Sénégal mm. maam le comité euh, islamique supérieur mm. Cheikh euh, Seydou Nourou Tall moo nekkoon président bi mm. Alaaji Abdoul Aziz Dabaax ci commission bi la bokkoon Baye Mandione Laye ci la bokkoon Cheikh Ibrahima Niass bu na Baye ci la bokkoon donc ñoom euh, euh, Cheikh Saad bu Seck toutes ah, les ah, mi doxul doxul parce que Abdou Diouf daf ko yàq il s'était retrouvé au au autour du code de la famille bu Senghor bëggoon bëggoon laal ñoom ñu xool code la famille boobu gis ni am na 74 articles ci biir code la famille yi nga xam ne dafa uteeg l'islam mhm. ñu jël un plaidoyer pour ñu soppi code euh, article yooyu pour mu respecter gëm-gëmu la majorité des sénégalais. Mm. Euh, Abdou Diouf la Senghor boole woon ak ñoom. Mm. il était instant yi ministre. Mm. Abdou Diouf euh, loo ko en plan d'urgence préclassé ko. pour dire que rek. synergie bu mel noonu un conseil du culte un conseil supérieur du culte. mën na nekk instant yi. fi mu nekk nii au contraire sax lañ ko. Ah, pour man instant bi lañ ko gën a soxla. avec l'archevêque de Dakar. Mm-hmm. avec tous les khalifes généraux. avec euh, les autres sensibilités ba ci les païens yi xam ne yàlla amul ison ont dañoo bokk Sénégal ñëpp ko bokk. ñu war a taxaw di waxtaan ci beaucoup de choses Sénégal ndax fii Sénégal lu yaay mënti wax. man ak yow ku mënti doon kenn ku nekk am na fu mu jokk am na kilifa. soo waxee kilifaam mu taxaw. Mm. donc conseil supérieur du culte boobu boobu daan wax ak mm-hmm. bi bu waxee sax duñ ko déglu. ñi ñaamatuñu kilifa. si si ba ba tey gaa ngi am kilifa ba léegi nii léegi am na kilifa commencé tumuraanke rek ba léegi kilifa gaa yi nga am kilifa <laughs> bu njëkk hmm? xalaat woon am parce que da doon xalaat boo ko hmm. defee sa kilifa. Hmm. mais léegi nii kilifa bi si boppam mu ngiy joxe la bon exemple. sax di def par exemple bu ma xoolee kilifa yi ñu fi gën a nekk en vie. muy xalif yi. koo si gis masque la takk. Mhm. mais est-ce que taalibe yi jokk si ñoom. Mhm. ñu ngee waaw man dama ñoom ñu ngee ñu ngee respecté mesures yi nit ñi wax. Mhm. mais seen taalibe yi respecté wuñu ko mooy li may wax ni nit ñi. dañoo nangootul am masque masque muccalul nit ki ci coronavirus. benn si poñ. on surestime le masque au Sénégal. Euh, masque fi ñu ko yóbbu masque yeggu fa non dal waruñu koo bàyyi nag mais on surestime la masque la masque amul njëriñ boobu masque. gis euh, nañ leen ñoom foo leen gis fu ñu dem dañuy raxasu man mais raxasu yi buntu kër yi yéen sa tegoon dindi nañ ko yéen fa nekk wow na kon kenn defatu ci ndox. waaw man kenn raxasootu kenn defatul attention. Hmm. bàyyeeku nañu relation complètement c'est que la la farce à trop duré moo tax. la farce a trop duré nit yi ils se sont relâchés parce que nit mën na ko xuuxal lu yàgg ci benn mbir ba ci Europe ak fépp. relâchement bi il est mondial léegi yi ñu dese. non relâchement bi il est mondial. solution relâchement il est. yàlla. te xalif yi on doit les ñoom wax nañ dëgg ñoom ay mag lañu les personnes de troisième âge doivent se préserver te xale yi tam ñu leen di ñaan ñu préserver troisième âge na ci kër la si deux minutes yi des mhm. solution waaw ñun de chaque jour nga wax lu problème problème ñun yeggalee yeggalee guñu sax yeggalee guñu sax suñu ay institution bay dugg si bay dugg suñu ay devise dama muus waaw ah. jël commencé benn institution assemblée ngi ñëw la nga leen yekk gën a mooy ma wax foo ko donc yow de de dans 15 jours da ngay ñëwaat. donc incha allah mais kon solution bi nga par rapport par rapport ah. di nga ma di nga ma dans 15 jours nga ñëw. waaw waaw allah dama koy annoncé ban annonce. waaw waaw incha allah waaw euh, professeur mooy sama invité ñu eggali institution. incha allah man li ma dama bëgg xam rek. Mm-hmm. ñoom fan lañ dëkk parce que pour man. Mm-hmm. ñoom euh, sama président du seen président man sama assemblée nationale du seen bos. wallaay ah, gis nga. xam nga validé na ko validé naa ko xam nga lu Sidy Lamine <laughs> yàlla na yàlla yox ko leer. dama bindoon ne un étranger parmi les siens. waaw moom sentiment boobu actuellement c' est sentiment le mieux ma wax lu tax loolu. waaw dégg kaay ma xaaral ma wax lu tax loolu rek. Sénégal nous sommes combien nous sommes 16 nous sommes 17 millions. waaw noonu lañ ko estimé. élection présidentielle nga xam ne mooy institution bu gën a ngand Sénégal. ñaata nit ñooy participer. li ëpp ci sénégalais ils ne votent pas. on essaie même pas d' interroger pourquoi ces gens ne viennent pas. mais déedéet de question de vote gars ñu ngi si àll bi ñu si bëri ñu ngi fii. ils te disent que voté ma. Ah. si nga xam ne dañoo am jot. non ils se pas par rapport à ces institutions là ak comment marche ce pays. ñi ñi nga xam ni. Hmm? Hmm? mbir mi da leen a euh, intéressé. Hmm? ñenn ñi. soo leen waxee ñun la yooyu yi fi caaxaan la loo tax voté de waaye se retrouvent pas ñooñu dañu am neneen luñ def man man dama def ay enquêtes yu bëri si wàllu googu moo tax loolu xam naa on va partager incha beneen beneen yoon waaw donc mais dans quinze jours moom il faut nga ñëw incha léegi dama la doon wax solution pour covid bi pour ñu def attention solution covid d'ici quinze jours jox mm. ñu benn euh, yóbbal yóbbal bo waaw man dama jàpp ne covid bi ay caaxaan kese la ëpp na donc man dama gis ni na nit ñi man sama conseil naa jox conseil kay sama conseil avec ces Séné na nit yi gën a fonk euh, seen seen système immunitaire il faut renforcer son système immunitaire par une bonne alimentation ah, ñu lekk lu il faut être propre ñu soxla ñu Covid pour set suñu diine def ñu sant ah, nañu set leen dañoo war a set n'est-ce pas mhm. ñetteel ba on doit on doit attention mhm. nit ku kuy yëg ci moom nekkat man am na ay signes yu ma gis sama bopp euh, tënkal sa bopp bañ a bañ a bañ a sonal ñeneen ñi. Mhm. nga jéem a faj sa bopp. Mhm. Euh, socc yeeg perte de goût yi. Mhm. ba ci ba ci booy lekkee dara mu lewee doo ko yëg dara dootu saf sa bakkan dara doot la xeeñ. ku ku loolu dal. waaw euh, boole seeg ay tàngooru yaram. Mm-hmm. boole seeg bopp bi métti. Mm-hmm. bañal bañal wàll ñi nga ñi nga nekkal. Mm-hmm. Euh, jéemal toog nga noppalu. nga naan lu tàng boole ko xorom ngeer. soo ko defee benn ñaari fan day dem. man man dal na ma ay weer ci ginnaaw. wér naa yàgg na. man gëm naa ni. kon kon ñi ñuy marginaliser. waaw bokkoo si yow. parce que nit ñi. li tax ñu bëri sax di ko am du ñu faju dañ leen di ragal. c'est vrai yaa ngi la grippe man dama jàpp ni grippe kese la. waaw symptômes yi ñuy wax en tout cas ci télé yi. man am na jamono bi xam ne yëgoon naa ko sama yaram. waaw alerte la bu def ma yàgg. waaw donc pour dire alhamdulilah. Ah. yàlla moo ñuy aar rek. Ah. yàlla na yàlla sàmm ñu dëgëral ñu. Euh, ñu àndandoo bokk nag xam ne ñu ñoo bokk Sénégal Sénégal suñu suñu suñu wërsëg la ci kaw suuf. Mm-hmm. te yàlla nañ si laaj ay compte suñu dee. Mm-hmm. ñu war koo sàmm war koo defar bañ koo yàq. Mm-hmm. donc man lii mooy suñu suñu suñu sensu peut-être euh, conseil yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi waaye comme je dis rek jàmm dafa am prix. yaa nga prix à payer bi nga xam ne il faut ñu évaluer ko xool jàmm googu ndax yelloo nañ ko <laughs> donc. Euh, jàmm yàlla moo koy joxe. <laughs> c'est gratuit. Ah. yàlla mooy maye jàmm. yàlla mi maye jàmm yàlla ah. mi maye jàmm. amiin te nga dig ma ni. di hmm. nga bàyyi toog ci sa caméra bi di di di suñu président ah, boo amee loo koy wax wax ko diplomatiquement wodd ko ci def lu dingatu la dëkk mën na wodd ko man moom saa daay man dama koy wodd ko waxal wax man duma wax mukk lu ñaaw ne ma musuma ko saaga nag wax dëgg yàlla musuma koo ah, saaga ah mais yenn saa yi nga wax loo xam ne man ah. euh, nii aucun kilifa ci dëkk bi parce que saaga du yoon mais saaga du yoon waaye nag am na yee xam ne nag nit ki bu ko defee nag dafa wax ni moom si moom joxul boppam cër te joxuñu cër ñun te ku ñu joxul cër na wax dëgg yàlla na. suñu wax moom loolu ah. sax waxuñu si. Ah, waaw souvent da ngay wax nii sénégalais yi si boppam. Mm-hmm. lu leen dal baax na si ñoom. Hmm. donc yenn saa yi sax à la man dama naan kii dafa yeb Sénégal. non man man je dis pas ça. man je dis pas que loolu baax na si ñoom parce que dama jàpp ni man Sénégal bi ma dama bàyyi opportunité yu bëri bitim réew. pour ñëw fii Sénégal a def. waaw man opportunité yu bëri liggéey laa bàyyi bitim réew. pour toog fii ci réew te defuma ko pour am ci dara. Hmm. nii pour seen su dara dama xam ne suñu dee. yàlla bu bu sa waay faloo bu la defee ministre doo toog si kii man aw ah, ma waay aw ma waay président Sonko ngay wax ah yow daal yaa toog ni man. Ousmane Ousmane Sonko waaw loolu maa ko waxoon la yàlla yàlla moo mais ma j'assume que j'ai voté pour ci ay conditions. pas sa personne de. ay conditions dafa am ay combats yi ma nekk man. muy combat sur le franc CFA. sur les zappé ay combat yoo xam ne. c'est le seul bi ma dégg mu prononcé wu ci. ak li ànd ak méngoog man. kaay ma wax la leen. Hmm? gis nga bis bu yàlla dogaloon mu fal. Hmm? réalité état dab ko. Hmm? mu xam ni français fa mënu ko fee jëlee leneen ak fii jëlee mu xam ni AP e yooyu tubaab yi ngeen di wax. mënu leen jëlagum seen indépendance totalement. parce que parewu leen. d'accord Sénégal gii. man d'accord ma ak yow puso mhm. puso puso aiguille. Mhm. aiguille. Mhm. duñ ko defar d'accord ma yow. Sénégal defarul dara. ay xale ngi defar drone ay xale yu ndaw ñu ngi defar drone. mais question de volonté kese la. waaw mais benn drone waneew ñu xale yooyu ñuy wane xale yi fecc c'est que question de volonté la. avec les média avec l'État avec ñëpp ñi xam ne. dafa mel ni on un système moom seen wàll dina ñëw. ndax ah. xam nga defe naa ne mosoo def émission. nit. andul ak yow ci say idée mhm. defe naa c'est la première fois waaw parce que yaag journaliste yi mhm. yéen a bokk ay idée mhm. ñoom buzz la ñuy wër kuy wax lu rëy la ñuy wër donc waaye man nii mair bi dem ba dellu si mu toog man wutuma buzz wutuma ku <laughs> te li nga wax yëpp dëgg la li nga wax yëpp dëgg wutuma siiw wutuma lu neex kenn man kii defar Sénégal lay wër lii indi jàmm Sénégal lay wër li nga xam ne ñun bu ñu liggéey jee bu ñu wàccee ñu am suñu paix social qu'on nous préserve cette paix sociale. Mhm. man loolu mooy sama combat. Mhm. Sénégal mooy sama combat. macha allah bi ñu waxee na ñu dem bay. Mhm. man ca laa jógee fii depuis trois ans kenn gisuma Dakar. maa dem wuti samay tool di bay. yàpp sama ñaam. donc nañu liggéey suñu réew. moo tax bi président Sonko ñëwee indi idée boobu. dama am idée jël sama tool abal ko bu waa këram ubbeeku woon sa ndar kon léegi abal naa ko tool waaye bi ma demee ca siège ba faaloon ma sax. donc. Euh, <laughs> non non dama ñëw ana nan laay def ba gis seen responsable. ñu ne ma ah, fi de wax bu gàtt ma rombaat dem. booba man damaa indi sama 7 hectares di ko abal pour mu bay. ndax sama mhm. me dis mhm. képp kuy def luy avancer réew mi. dëgg la jarul nga ngay xam man xamuma ko. dëgg la bokkuma si parteem. Mhm. bokkuma ak moom ay idée mais li mu doon wax moo ma ñulu ma bëggoon jël tool jox ko. dëgg la macha allah donc def nga sa def nga sa wareef kooku mooy sama sama kii tu tu es cohérente au moins tu et constante ci li ngay wax te li dafa am solo absolument lii lañu soxla ci dëkk bi nag voilà li li lii laay def man mhm. léegi na yow dig nga ma dans quinze jours di ñëw waaw incha allah dans quinze jours incha mhm. allah ñu mhm. toogaat fii beneen civisme et citoyenneté ñu yeggali Mhm. ndax moom defe naa maa ngi moom pare wu ñu léegi ma leen di jaajëfal rek ci topp bi mhm. di leen jox rendez-vous dans quinze jours di jaajëfal ñu nekk fële ci ginnaaw di ñaan rek yal nañu yàlla sàmmal suñu jàmm ji ndax nag suñu richesse bi gën a